grand mais ko loxo mu wàcc. yàlla. জিনিসগুলো góor wóor da ngay dem te glissade wala wala ci jàppal non xel bu baax moom mo xaan boobu noonu naka ñu ngi koy yégal ci wóorul de waaw est-ce que ñoom papa yaa ngi madame ski woon na ma kooku camion la. am na ku gënoo dem yoon. di doon daal. kan bu ñu dem seen nañu moo gën. Chirurgie. donc noonu la ñu